jamono ji parti démocratique sénégalais nekk ci renouvellement ak jaayum carte yi ngir seen formation politique bi jëmale ko ci waajtaayu élection présidentielle yi loolee tax délégation yi ñuy yabal ci gox yi dem nag ngir jàkkaarloo ak kuréel yi nga xamante ni ñooy liggéey ci base bi bi ñu demee Tiwaawan ne meeku nanu ni Bara Gaye mi doon émissaire bi recevoir na waa PDS diwaan boobu mouvement Sénégal ak Karim avec la panthère bu Fatou Dieng amoon ci taxawaay bu am solo délégation bi nga xamante ni moo jóge woon Pire Aminta Diop moo ko jiite woon di nag délégation bu mat sëkk waaye tamit bi ñu foofu fekk nañ fa Pape Maodo Malick Guèye moom mii président moom mii di président section PDS bu Tiwaawoon ak soxnaam bi di la responsable des femmes de la même ville Sénégal ak Karim avec la panthère si mobilisation bu jéggi dayoo bu mat sëkk ci li ñu sumb di jaayu kàtt yi ànd seeg seen leader Fatou waaye am ñu foofu délégation bi demaat ba Louga foofee Sénégal ak Karim avec la panthère dalalaat la délégation si njiitalu Ndeye Diabé Fall mi la coordinatrice foofee nag délégation bi nga xamante ni moo fa ñëwoon Omar Sarr moo ko jiite woon ànd si ak Saliou Dieng Saliou Dieng mii nag jot na taxaw si moom ndaxte mooy jàmbaar fakk tëdd bu Karim Wade di missionnaire am ndaxte chaque fois mi ngi dox luy doxal kuréel yooyu nga xamante ni ñooy mouvement yi mouvement Sénégal Karim avec la panthère rafet loolu taxawaayam si kàddu ki nga xamante ni moom mooy seen jiit au niveau national et international di Fatou Dieng renouvellement yi ak jaayum carte yi nga xamante ni parti démocratique sénégalais jibal na ko ñii di Sénégal ak Karim avec la panthère fas yéenewuñu si des ginnaaw ndaxte dinañ def seen kéemtulaay kàttan ba dox si lii di massification loolu si jaayib carte gi ci bépp gox boo xamante ni seen ay mouvement seen kuréel gi am na fa base ci biir réew mi ak si bitim réew